ñu ak suñu élection ñu quand même on n'a pas le droit de contester mais, ça mais, mais, mais mm-hmm. xam nga fi nekk nii ñoom li ñuy ragal mooy euh, de manifestation légales et pacifiques parce que bu ñu autorisé woon ñu ñu ñu dem place de l'obélisque mais dina am une foule immense boo xam ne euh, bëtu communauté international bi yëpp ñu ngi fii la presse étrangère est là tout le monde surveille ce qui se passe mm-hmm. donc bu xawee nuru li amoon maleek yooyu donc loolu day doon une autre pression mais toute démocratique cette fois et toute pacifique euh, sur le régime léegi ñoom ils ont le choix entre cette image là et des images de chaos comme vendredi dernier mhm. yi ñu am nga xam ni c'est une balafre pour la démocratie sénégalaise donc entre ces deux moi je choisirais ce grand rassemblement comme ni ko Abdoulaye Wade permettrait woon en 2011 plutôt que ay scène de chaos de violence yoo xam ni day day affecté su économie mm-hmm. ñu am ci ay ay pertes en vies humaines en matériel ay emprisonnement mm-hmm. que de que de collatéralité alors que rassemblement pacifique ñun tolluwaan ba heure bi di jot sax dañ daan négocier ak force de l'ordre yi pour ñun ñu mën a terminer seen temps de parole ñu accordé ñu ba ay 19 heures parfois. Mm-hmm. après ñu dem et puis c'est fini. jàmm le lendemain euh, les journaux couvrent on exploite et puis mooy démocratie. président Macky Sall waru ko ragal waru ko bañ. donc il a s'il a choisi entre les deux bële donc vendredi bu ñu autorisé woon. Euh, euh, euh, manifestation manifestation yi xale yi du ñu am benn prétexte pour taal quoi que ce soit. parce que lacrymogène du tàkk man j'étais à Valfadri vendredi. mais dañu nekkoon di di di wax nii tranquillement gars yi fa la ñëw rek jël ay grenade ay grenade yu sax dóoruñ ko. ah ñu noonu te témoin. ah ay ah, am si woon. non c'est loolu loolu am yi mais mais mais après. Uh-huh. ñi nga xam ne seen yoon nekku ci. waa xaar yàlla yi nekk ci beneen côté terrain bi. Ah, si si xale yooyu. xale yooyu mais ñoom ñoo ñëw di attaquer policiers yi. mais xale yi ñoo ñëw di attaquer policiers yi ba taal fa benn oto donc yooyu. nga autorisé bu ñu bàyyi woon waa Walfadjri taxaw seen seen seen seen seen siège def seen discours wax seen lu leen metti mais quand même il faut que les gens expriment leur opinion et article onze u constitution bi moo ko consacré donc yooyu vraiment je crois que war nañu dellu ci état de droit donc pour dire que ñoom mënuñu violer tout ce qui est droit ba noppi ñun di ñu tënk ci droit loolu je crois que dictature la war ñu ko nangu donc FDD ni mu def mhm. woote manifestation sans se préoccuper déclaration mhm. tempo bi loolu la contexte bi loolu la laaj. léegi léegi man fi mu la bëggoon laaj parce que yaa ngi doon wax ci ci yi ba léegi te keroog tamit dafa euh, ancien président Abdou dafa am loo xamante ne da ko wax mais peut na ci moom gën na joxaat gëdd ñi nga xam ne ñoo di waaye ñoo am sañ-sañ dàq élection ak maintenir date élection am déet kon jamono ji est-ce que pression bi nekkul plus sur le conseil constitutionnel que sur le président. non conseil constitutionnel amul benn pression moom day xaar ñu teg dossier mu mu wax. léegi li Abdou Diouf que dañu war a respecter décision conseil constitutionnel moo créé yooyu la constitution yi tout ça. Mm-hmm. mais Macky moo ko njëkk wax. Macky Sall moo ko njëkk wax. bi ko recalé yi bindee lettre le 15. waaw li mu leen tontu article 92 la leen opposé. ñu mm-hmm. décision conseil constitutionnel c'est pas susceptible de retour. Mm-hmm. ça s'impose aux autorités administratives et et et juridictionnelles. kon nañu tënku ci loolu moom moo ko njëkk a wax. waaw mais dafa dem ba ci biir nag daal di jël décret weddi loolu yëpp. kon dafa war a retourner à la légalité constitutionnelle au respect des lois parce que dafa def par jour moom moo juré woon devant Dieu et devant la nation d'observer comme de faire observer la constitution et les lois donc bu jàkkootee loolu rek par jour la

stratégie aussi euh, d'exposer la force pour ne pas avoir à s'en servir. ah effet dissuasif. lan la. Mhm. mais man yërëm na gendarme yi ñuy gis. ah oui il faut le mais bu ñu nekkoon ci nawet. on les mettrait là muy taw seen. exposer leen bon na nañu quoi. vraiment te te dara jaru ko fi mu dul benn décret boo xam ne moo fi indi lii yëpp. cette fois-ci on va pas dire que c'est l'opposition moo fi indi ay. donc euh, ça je crois que c'est à gérer avec beaucoup d'intelligence. et voilà. Clédor silence silence bu gaaw bu ñu gis ci CEDEAO tamit est-ce que euh, parce que on avait annoncé le le président euh, il, il n'est pas venu finalement mais il y a une délégation qui est qui est venue quand même les sont ils quand même euh, euh, la CEDEAO est dans un malaise parce que Macky ci ci ci ñi doon jiite la bokk. ñëpp ñu ngi fàttaliku Mali bi mu ko bu ko nee écoute il faut organiser des élections après ñu sanctionné ko alors que Mali c' était dañ ko dañ ko dañ ko xaajoon ci digg bi le nord là était ingérable incontrôlable foofu mënu woon am élection. te def organiser une élection dans une partie du pays c'est consacrer la partition du pays parce que foofu administration ba amu fi woon doole ñu ne leen bon may ne ñu tuuti ñu ne non non duñu leen may dara yaay jàmme gis nga ni ko Macky def indi suñu jàmbaar yi foofu ñu tëbal ko mu dem parce que démocratie moo tax Pape Sané il a fait un poste avant-hier là bu bu bu reelu <laughs> nii dañu war a est-ce que ñu woo Yaya Jammeh <laughs> donc euh, mu def intervention est-ce que CEDEAO du yebal Yaya Jammeh pour que ramener euh, Macky Sall à la raison donc CEDEAO boobu tey jii euh, dañu am beaucoup de beaucoup de jeunes pour wax Macky dëgg quoi mais finalement def nañu benn communiqué pour le rétablissement du calendrier électoral parce que l'heure est au rétablissement du calendrier électoral acteurs yëpp moom la ñuy laaj pression internationale bi clameur internationale bi ko topp conclusion bi yëpp mooy le rétablissement du calendrier électoral kon l'heure n'est pas au report report kenn mun ko dégg communauté internationale bi mun ko dégg opinion nationale bi mënu ko dégg parce que toutes les forces vives nee nañu mu ñu dem élection léegi nag si matériellement on a un problème de cadrage temporel mën nañu bañ a génn mois de mars premier dimanche mois de mars mën nañu def élection dernier dimanche mois de mars mën nañu def deuxième tour comme ça du ñu génn 2 avril pour la passation de service mu jeex léegi euh, Macky aura peut-être moins de temps pour préparer ses valises mais bon c'est c'est c'est lui qui a créé, créé ce contexte-là donc euh, waxoon nañ ko fii opposition même bu amee une semaine de campagne sax jël parce que les gens sont déjà prêts nañu quoi <laughs> donc donc temps d'antenne trois minutes bi mu ko defee dix minutes sa compense même euh, préjudice bi ñuy am ci communication ci campagne bi mais nit ñi électeurs yi pare nañu acteurs politiques yi pare nañu defal nañu seen visuel consacré nañu ay investissement dugal nañu ku nekk trente millions ñuy jënd seen ay otoog yooyu tout ça mais Macky Sall jël benn décret rek ni dañuy aj loolu yëpp et puis il va aller jusqu'à kenn xamul kañ la. léegi léegi bu wootee dialogue il va mettre sur la table de l'argent on en avait parlé hier. Mm-hmm, parce que des candidats yoo xam ne yaakaaruñu am 1 pour cent bu ñu ñëwee ni dépense nañu 2 milliards seen campagne Macky da leen di remboursé. bu ñu waree demaat campagne aussi il faut. ñu ñu appuyer leen et tout ça non ils vont parler d'argent dialogue yooyu dañu teg xaalis ci table man xam naa li mu la wax et Macky il a beaucoup des milliers de milliards am na ñoo xam ni il parce que ñooñu leneen moo leen tax parce que bëgg naa sax mais après suñu gan dina ma ci indi ay leeral mais foofu tamit est-ce que jamono ji itam il n'est pas en de réviser son coup par rapport au report ndax en de réussir le coup du report boo xamante ne euh, ce qui yi nga xam ne ñoom ils sont favorables au report nangu nañ sax idée wu dialogue bi te ne ñoom nee présidence wootee dañuy dem ça c'est ça une partie je dis une partie d'accorduñ ci mais su fekkee ne ñoom ñi nga xam ne dañoo boole woon seen doole ne euh, li li conseil conseil lu dëgg du yoon ñu dem ba jamono ji xaajee nañ leen mais su yàggee est-ce que ñoom ñëpp sax du ñu ànd maasaale sax ànd ci loolu. cette partie la est-ce nga seen fas yas donne-moi des noms. Aminata ah, Assome Diatta <laughs> Cheikh Diane Gadio na Karim Wade représenté. Eh, waaw euh, ak ñan Mayoro Faye. Eh, ah, quand même ay Mamadou Diop dëkk ñooñu ñooñu vraiment ñooñu ñooy les artisans du dialogue et les partisans du dialogue ñooñu ñoo am intérêt à ce que dialogue am ku ci nekk am nañ ci ñooñu nga ci lim ñoo amuñu benn espoir gagner ay élections présidentielles mais s'ils peuvent avoir par un dialogue des milliards sur la table dañuy jël ñooñu ils vont plaider pour le report ñooñu c'est autre chose il y a il y a cet aspect malsain du dialogue là euh, cet aspect financier mais sur le plan politique euh, nañu respecter la constitution nañu respecter le calendrier électoral léegi comme fexe nañu ba ñu am retard parce que Macky Sall moo fi jog période de révision six mois mu réduire ko un mois. ci décret moom avec son décret il fait tout ce qu'il veut. <laughs> léegi nag décret dooleel nañ ko bu mu am une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale il va encore en faire plus si on ne résiste pas moo tax la pression intérieure elle est importante parce que moom mooy engendrer pression extérieure. te am na li gën a tax sax euh, sur le plan extérieur gars yi farlu ci parce que on di hier il y a eu beaucoup de mille vingt et te dégguñu leen pourquoi maintenant. maintenant mais j'ai pas voulu te répondre hier à cette question parce que réponse bi dafa xaaw mën na indi influence ci ci ci ci comportement euh, yi bu ñu wàccee ci terrain tu as donné une réponse donc c'était pas la bonne euh, c'était pas la réponse complète mais il une autre raison boo xam ni bon léegi doo ko damay wax <laughs> c'est-à-dire c'est-à-dire euh, ah. xam nga tey jii France moo waroon gën a taxaw ci li xew Sénégal moo waroon gën a am souci préoccupation ci li xew Sénégal. ndax ay intérêt waaw mais États-Unis moo ci gën a am taxawaay moo ci gën a am souci. waaw ambassade États-Unis presque chaque jour ñu def ci manifestation. c'est ça loolu la. voilà foofu laa yem. <laughs> Euh, hmm. seen seen xëccoo. seen xëccoo yi donc. voilà ku ci nekk ku ci nekk peut être da ngay da ngay xool. voilà on a bon voilà. parce que am yeneen dimension quoi. waaw ça a commencé comme ça gis naa booy commencé. au Mali aussi c'était ça. waaye wax loolu rek booy wut ay drapeaux yu bëri génn <laughs> xam nga voilà clé loolu moo ko wax. bon <laughs> c'est toi qui m'as tiré le verre c'est ça mon mais mais mais mais dans confiance à mes autocensures man su ma la nee nii. Mm. kii nag y a des raisons quoi su ñu tuuti les verres nag su amee ay dégâts collatéraux. mais dans ce cas sax di joxe aussi une partie benn ay raisons yoo xam ne moo tax itam. gars yi di manifestation parce que su nekkee am na loo xam ne jàpp ne mën na indi dara wala mën na may ñenn ñoo xamante ne dañoo jàpp ne borom yi doole lañ te fu ñu fëgg table ji itam table doole dina yëngu su nekkee dañuy ubbil askanu senegal wala njëriñ ci askanu Sénégal boo xam ne dañuy woo ñoo ne ñoo leen wax ci li fi itam est mooy tax ñu ne ñii duñ leen maye bunt boo xam ne loolu danañ nan nan leen may ñu ñu non moo ko war a régler te moom moo koy régler ñun ñoo koy régler FDD euh, aar suñu élection cadre yu judd cadre de lutte yu judd yëpp ñoom ñoo am responsabilité régler loolu parce que ñuy non non non parce que c' est des jeux d' intérêt c' est des c' est des jeux voilà parce que ñun dañu war a asseoir suñu parce que ñun gouvernance bi ñuy aspirer mooy une gouvernance souveraine mënoo aspirer à la souveraineté en t'alliant à des xam nga il faut nga rompre il faut nga am le libre soit de tes partenaires au développement le libre choix de de la définition de tes politiques économiques euh, euh de tous ordres mmh. donc nga comme comme alliance du Sahel mais moi je suis content pour ces gens-là hein, qui, ah. qui, ont, qui ont frappé monnaie, maintenant leurs ressources am de leurs devises chez eux, alors que nous on prend la moitié pour yóbbu ko France au titre de la garantie du franc CFA et tout ça. Donc euh, voilà, ils ont ils déterminent les prix, l'uranium ne coûte plus euh, euh, ce que ça coûtait pour Areva, c'est devenu onze fois plus cher. Donc et puis c'est c'est des devises qui rentrent. L'or du Mali seen lithium seen lépp léegi xaalis bi ñoom ñoo ko moom. donc leur code minier